Euh, dañ ñëwoon tey gane si suñu xarit suñu soppee suñu sëriñ sëñ bas Abdou Khadre ndax euh, dañoo bokk ak moom liggéey boo xam ne euh, dañ ci war di toog di waxtaan yàlla dogaloon mu invité ñu woon ci këram ga nekk ci dakaar ñu dem demoon fa jataay bi am ak moom solo mu ne suma ma sañoon jataay bi Touba lay doon ñu d'accord ci ak moom ba ñëw fi tey bureau national bi yëpp mën naa wax ne ñëw nañ di ko ndokkeel di jaare ci moom di ziare xalif général des mourides sëriñ Mountakha Mbacké mi ñuy ñaanal mu gudd fan lool te ànd ak wér comme ni ko ñëpp di ñaane te yàlla na ko yàlla nangu ñëw di feddale ak moom coloré wolof day wax ne yanukatu xëddeen dañuy diisoo loolu moo dox suñu diggante ak ñoom ñun dañu nekk ay imaam gannaaw bi ñu nekkee njaboot ba pare juddoo ci këru diine yi yaroo fa jànge fa yalla dogal ñoo nek ay imam ci gox yi ñu ñu wara nek kaddu kilifa diine yi nek seen beut nek seen nopp. waaw jikko yaq yàqu yi moom ñëpp ko constaté ñepp ko constaté ñepp koy jambat aussi ndax arrangé wul kenn ndax am rew bu fekke ña fa dëkk yaruwuñu ñàkk yar ga dana laal ñepp mam ñi yaru te tuuti sax te wuñ nak ñi yaru sax yak yar bi déranger na leen kon ñepp la dérangé liko waral gëstu la laaj ndax dafa xoot ndax xóot na lool yara di gi xóot na lool ci dëkk bi waaye nag pexe amut ndax yonent yi yàlla yónni yëpp rawatina yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa yàlla dafay wax ne jàngale tax ñu jóg mais yar la jiital boo demee ci alxuraan ñetti béréb yàlla tudd na fa jàngale ak yar waaye ñaari béréb yëpp yar la jiital dafa mel ni yitte jiñ daan jox yar joxatuñ ko yar léegi ñi ngi jàngal nit ñi mais kenn yaru leen loolu nag ñun ñëpp ci am responsabilité ñu japp né kon imam yi am nañ ci responsabilité aussi ñun bu soobee yalla danañ jël ci responsabilité bu mat sëk lépp lu ñu man xam ko né suñ ko defee soppeeku dina am ci walu yar bi danañ ko def ndax loolu loolu moo ñu jik